Euh, sportif euh, bu ko defee rek ñu waxtaanee nag li nga xamante ni moo di euh, tàggat yaram tey nag am na nañu mbégte dalal Pape Moussa Diop moom Pape Moussa nekk en coach sportif coach ñu ngi lay nuyu di la ziar c'est un plaisir ñu lay dalalaat ci matinal bi. soxna si le plaisir est partagé. Mm. immense plaisir la ak contentement may répondre seen invitation. di la ziar bu baax ci ajuma ji. delloo ziar ñu ñi ma bokkal plateau ces éminents monsieur yi ma fekk ku mel ni di nuyu chers téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan tout temps ci la 7TV. dalal ak jàmm comme ni nga ko waxee Grégoire daal di ne ñëw rejoindre ñu Grégoire waaye la nuyu mbokk yi. nuyu naa la Aïcha nuyu foroxtaay ci réew mi yëpp <laughs> nuyu waa Régie naka coono yi. foroxtaay seetaan quoi yow pour samay xarit la te dem fu jaar. ma jaarloo fa ay nit di <laughs> Pape Malick def constat dalal ak <laughs> jàmm <laughs> Grégoire euh, dalal ak jàmm coach dañuy waxtaanee saison de lut bi nga xamante ni ci la ñu nekk saison bi doy na waar de nu mu demee noonu ah am ay combat tenor yu nga xamante ni tëgg euh, jàppoon nañ ko mais finalement dañ ko mujj annulé. waaw on a remarqué depuis un certain temps que nii combat yu bëri dañ koy reporté à cause des blessures yenn peut-être euh, promoteurs yi la wala ci mbër yi la. mais d'après li ñu remarqué def boobu léegi blessure yi moo gën a récurrente ci mbëri. ok waaw. blessure yi. waaw blessure yi lañ wax ne moo gën a récurrente parce que boo xoolee lu mat quatre wala trois combats annulé nañ ko peut-être ci préparation bi la ci temps bi la peut-être euh, dañoo pareegul lii ñi bari na daal xamuñu exactement lan moo tax. yow en tant que coach pourquoi mbëri yi bu ñuy préparer seen ay combats rek di di di gaañu alors préparation xam nga dafa dafa am ci ay fondamentaux yu mu tege may jël ay tuuti kàddu yoo xam ne suma suma xarit suma ndijaay Max moo koy wax li mu yàgg a wax ñu koy reetaan li mu naan mbër du préparé dafay pare moment bi da ngay xam ni il a raison il a eu raison sur tout le monde lu tax parce que mënoo bàyyi ba am komba doo ko dem di entraîner ci parce que loolu constance du am parce que entraînement dafa laaj assiduité dafa laaj ponctualité dafa laaj régularité ak stabilité donc bu fekkee ne fànn yooyu yëpp dajewul ci ki nga xam ne sport de combat lay def bokkul ak sport collectif. donc bu fekkente ne da nga bàyyi ba am combat ñu ne la combat bi c'est dans deux mois fekk yow préparé wuloo woon avant les deux mois nga ne bërit bëgg dem entraîné ji. day da ngay gaañ sa bopp. parce que réveil musculaire dafa am ci yaram doomu adama mhm. et quand tu dois li nga xam ne li ñu koy wax cardiovasculaire. ak cardio-musculaire mu nekk ñaari mbir yoo xam ne dañu war a ànd pour que l'athlète soit en forme mm-hmm. et gis nañ ne mbëri li si ëpp seen cardiovasculaire bi ni ñu ko war a liggéey ñu ko liggéey mën nga am habillage yu yor yaram bu nekk nii ñu ne musculairement il est il est bien il est bon mais ban masse musculaire nga am est-ce que c'est pondéral volumineuse wala masse musculaire sec nga am wala corps athlète pour mën a liggéey ak loolu donc soo bàyyi ba combat am nga ne bërit bëgg dem commencer di entraîner te yaram dafa mel ni une plante. Mm-hmm. benn graine autant pour moi booy semer graine bi trois jours ni ñu ko jàngee ci ci ci ci SVT trois jours fi mu war a toll six jours neuf jours douze ba ni muy màggee nga gis fleurs yi génn mm-hmm. racines yi commencé c'est la même chose que chez la personne parce que bu ñu fàtte ne le corps humain est constitué de huit maisons mën nañ ko tuddee noonu juróom-ñetti kër la yaramu nit am donc ci biir juróom-ñetti kër yooyu y a cinq cent ou groupe mus muscle yu ci nekk ci huit groupes musculaires yooyu donc benn bu ci nekk pour mu jox moromam du benn fan du ñaari fan moo koy liggéey. Mm-hmm. c'est un travail à long terme et fixe nga am benn chronogramme wala benn programme d'entraînement boo xam ne dafay basé wu ci la récupération mm-hmm. l'alimentation et la programmation de l'entraînement justement pour que muscle bi mun a nekk au top saa yoo ko yeewee mm-hmm. mu siggi xool la nga bañ ko yee brutalement yee brutalement mooy muscle boo xam ne mi ngi nelaw pendant deux trois mois nga xëy rek bëgg ko sëf lu mu attanu da ngay claqué. <laughs> loolu mooy première ñëw parce que le constat bi ñu def jamono ji moom mooy mbëri ñu ci bëri waroon bëri ren daaw la ñu signé seeni i mhm. donc euh, ma jëlee par exemple ku ci mel ni Balla Gaye adversaire yi mu am bokkuñu woon Boy Niang la woon Bombardier ak euh, Eumeu Sène gabarit yi bokkul mais aussi seen façon de lutter aussi bokkul boo xoolee. Euh, est-ce que tey dans cette euh, pratique de faire euh, dans dans cette pratique de de sport euh, contrat mu def un an durant nga bëgg ci yor ñetti maas yoo xam ne bokkul est-ce que bokkul tey ci li nga xamante ne ñoom manque de professionnalisme boobu noonu moo leen di dal moom moo waral tey ji yëpp yëpp ñu mën a gis ne euh, ce sont des blessures yoo xam ne chaque fois ay ay muscles yu xotteeku la ci biir en général dans dans dans cette façon de faire du sport tey jàngat bi moom mooy lan ñoom ci seen côté. xam nga da nga wax énuméré lu am solo da nga am ñetti sujet yoo xam ne bokkuñu poids bokk nañ dañu li gars di wax dañoo bokk école rek waaye bokkuñu classe donc mënoo préparer te waxoon naa ko autant ñu yaakaaroon ne dama am problème ak mbëri wala dama contre c'est pas ça comme li nga wax il faut être professionnel man je peux pas concevoir quelqu'un qui gagne kuy liggéey sax ñu lay fay nga am salaire te doo régler sa planning de vie wala nga am benn carrière mbër mënuñ la fay cinquante millions te nekkatoo professionnel sa wàllu lekk da ko war a xool sa wàllu entraînement da nga ko war a xool fi ngay dem li ngay sol ak ñi ngay àndal ak ñi ngay toogal cela ne veut pas dire que da ngay bàyyi ñi nga àndaloon su fekkee danga nga am ñetti sujet yu bokkul benn boo xam ne euh, grande la moyen ak petite mais ci n'auras pas la même pro euh, préparation pour les trois bu nekk ak ni ñu koy préparer benn ñaareel bi bu fekkente ne da nga bëgg def la transformation de la masse musculaire graisseuse pour nga jël ko yóbbu ko masse musculaire sec dafa am yoon bu muy jaar pour que professionnels yi mën a continuer ci loolu dangay am fondamentaux yi muy dénominateur commun bi mooy tout le temps tout le temps na nga nekk en forme comme on dit la forme au naturel la forme on naturel li koy indi mooy athlète bi warul xëy suba te demul footing mm-hmm. def réveil musculaire bu dara amul même bu nekkee en vacances il faut mu def réveil musculaire yow remarqué nga gis nga joueurs yi au niveau yi wala sportif de haut niveau yi après la fin du match su ñu duggee vestiaire dañuy génnaat ñu def délassement wala ñi jéewul woon defaat beneen délassement ah c'est pas pour rien ñu koy def moo tax donc mbër bi programme bu ko amee nga jël mbër buy def cent cinquante kilos nga war a bëre moom doole bi nga war a am explosivité rapidité ak acidité bi nga war a am pour bëre kooku bokkul ak ku nar a bëre yaawu jaal bokkul ak mi préparé ak mhm. même bu dee bëri la technique bu bëri bi di nga ko def mais toole bi est-ce que kii dafa laaj mu am rapidité wala explosivité est-ce que kii dafa laaj mu am benn dal est-ce que kii dafa laaj combat boo xam ne day époustouflant wala day étincelant mais loolu lépp ci préparation bi la. Mhm. mais bu fekkee danga nga nar a jël trois combats nga bëgg bu combat bi ñëwee nga entraîné bu paasee nga noppalu ko dafa mel ni ngay woyal soow jigéen ñi peut-être wala jaagul soow xam nañ loolu. lu tax ñu si dolli tuuti soow bu jot a way ba pare pour mu jox ko forme la mais tant que yaa ngi koy yëngal soow bi du mës a way da koy bàyyi bu ne tegg toog c'est la même chose yaram da nga koy préparer tour le temps nekk si continuité boobu bañ a bàyyi mais am na relâchement un peu nekk ci beneen chronogramme boo xam ne instant bi pic bi day yéeg am moment boo xam ne day wàcc mu nekk ci benn cadence boo xam ne plateforme lay nekk lu am benn benn benn pic ah. euh, bon Euh, moi, je vous découvre, bon, enfin, je vous écoute avec euh, euh, un grand intérêt. Euh, coach, rek si ngay nekk wala dangay kii yëpp. moi je suis un préparateur physique général. ci ci kii yëpp ci secteur yëpp. PPG waaw alors lamb ji presque depuis les années quatre-vingt-dix ba léegi boo gars yi dañuy percevoir ay million comme ni nga ko waxee tout à l'heure Euh, et puis bon parfois et puis il y a beaucoup de trucs yoo xamante ne dañ ko si wax que soit mu nekk si mbëri physiquement mhm. wala si yeneen secteurs yi mais bon comme que si domaine domaine corps la ñuy wax bon ñu resté si na nga gisee parfois da ngay di mbër di préparer benn kii euh, je sais pas ma xam yaa ko wax wala Grégoire mu am ay blessures et tout nan nga de façon globale nan nga gisee euh, arène bi moom mooy mbër yi nga xamante ne ñoo nekk si biir est-ce que Euh, du ñu professionnel de façon globale wala ñu ngi ci amateurisme est-ce que ñu ngi respecter comme yow li nga wax ni sax est-ce que loolu gars yi ñu ngi koy respecter toujours wala dafa am benn amateurisme boo xamante ni mu ngi ci biir que tant que passé wu ñu loolu professionnalisme du am. waaw dinañ ko ci xaw a sentir est-ce que ñëpp la bon je dirais. en constat global ko globalement entraînement bu ëpp excès d'entraînement dafay gaañ mbër ñàkk entraîné. dafay gaañ mbër. mais entraînement bu stable tamit dafay gaañ sportif su ma nee mbër mbër sax la ñuy wax parce que looloo tax ñuy wax ci euh, émission bi ni mbër mais en général sportif athlète de haut niveau moom moomul loolu. parce que bu fekkee da ngay entraîner combat nga am ko ci trois mois. yaa ngi doon entraîner garder nga lay muscles la forme au naturel comme je l'ai dit tantôt six semaines yu njëkk yi il faut nga am plan boo xam ne wala programme d'entraînement minimum. di nga am trois séances par jour. trois séances trois séances. par jour pour un lutteur professionnel. pour un wala un athlète de haut niveau laay wax sax parce que loolu pic boobu mënul continuer dafa mel ni nga taal safara ndox bi di tàng di bax di bax am na fu température di toll day jéggi taxaw stable bu dee seetloo yenn machines yi bu température bi nar a élevé rek day fayal boppam. Hmm. mais nit noonu la mel da ngay craquer ngay taxaw. Hmm. système bi mooy bañal boppam. alors comme que ñu ngi ci cadre boobu noonu aussi <laughs> euh, cadre forme la nga wax. pourquoi ma seetlu tafaatin ak Modou changement amul ci ñoom ba léegi chaque fois ni ngeen di ci préparation noonu la ñuy duggee ci làmp constance la régularité la ponctualité ak assiduité boobu ma la doon wax. moo ne ci ñoom waaw am na ci mbëri yi noo xam ne am na ci ñoom wala ñenn ñu ngi ko mën a wax. duñu bàyyi ba am combat doog a entraîné peut-être Balla je peux comprendre à un moment donné dafa feebar il l'a dit avoué na kon am na mois am feebar na entraînement am stable tul woon mën naa ko comprendre mais am na si mbër yoo xamante ne ñoom du ñu bàyyi cest à boo limee doo matal wala mën nga xam nga euh, def euh, consul euh, nu mu tudd sax na laa ko mën a expliquer nga nga nga joxe sa point de vue wala am na loo nit ñi duñ ko gisee noonu parce que côté fanatique bi moo leen di yóbbu ba mu ëpp dañ yaakaar ne da far wala defoo sa analyse bopp mm. te sa analyse bi nga def peut-être mën na la concerner mm. mais sportif wala xam ne yëpp ñoom boo leen gisee bàyyi fois seen combat dafay feeñ mm-hmm. exemple yu mën nañ ko énumérer mm-hmm. Baboy amu fi combat ci biir préparation bi jékki def benn accélération mu am déchirure déchirure musculaire contre Balla Gaye la woon mm. mais mais est-ce que euh, comment dire euh, mbër yi par exemple. xam nga ku nekk taille yi bokkul poids bokkul par exemple Modou Lo nga bëgg ko comparer ak Balla Gaye wala ay Tapha Tine euh, bokkul voilà ci taille bokkul est-ce que mbër yi ñoom xam nañ ne parce que pour man en fait coach bi lu mu am am am xam-xam nit ki moom moo war a gën moo ko war a gën a mën xam kooram pour xam pour mun ko contrôler. pour mën a contrôler lii su ma defee lii euh, wala su ma defee lii dinaa si génn est-ce que par exemple mbër yi par exemple le fait que un Modou Lo wala wala beneen euh, mbër Tapha Tine wala wala wala Balla Gaye euh, ñoom est-ce que xam nañ ne su fekkee da nga am yenn taille wala nga am yenn corpulence yi nii nga war a entraîner wala nii nga war a entraîner de telle sorte que par exemple soo demee si làmb ji bon loolu du la si mën fekk par exemple en plein plein combat nga am déchirure que ñoom xam nañ loolu sur euh, si toujours si affaire professionnalisme est-ce que ñoom euh, xam nañ ko ils sont courant de normalement parce que li ñuy bi ñu dalee làmb ba léegi commencé ñu am expérience bi ñu jëlee ci yeneen coach yi ak ci yeneen ci yeneen experts yi leen jot a formé. Mm-hmm. mooy li damay revenir ci trois séances d'entraînement yi soo xëyee dem à la plage wala nga footing ci corniche bi loolu mooy li ma doon wax cardiovasculaire bi yaa ngi koy liggéey c'est pour préparer la condition physique. Mm-hmm. nga mën ko am le fait de faire longtemps sans se fatiguer. deuxième bi mooy parce que tu es appelé avoir de la force il faut nga dem defi beneen exercice wala beneen liggéey boo xam ne dalay permettre sa muscle yu nekk en forme muy saillant tout le temps mën a am résistance musculaire pour mën a affronter loolu et mbër nga forcément le soir da ngay dem defi technique dem ci école de lutte bi wala écurie bi pour préparer def li ñuy wax ay contacts parce que nga mën abi abi habitude boobu mais ñoom biñ dalee entraîné ba léegi bu fekkente ne coach bi leen di préparer expliqué wu leen waxu leen ban pic parce que des fois dañuy oublier c'est pas parce que ñu naan 1 2 3 4 5 6 7 8. de 1 à 10 am na sensation de 10 à quinze am na la yëg de quinze à 20 boo si mosul jaar xam fi ngay sonne di nga topp nit di ko compter di ko entraîner ba mu claqué te xamoo ban moment ndax sonn na wala sonnul. Mm-hmm. mu wax la ko waxuloo ko yow war nga xam tel nombre de comptes. Mm-hmm. bu fa nit ki tolloo sonn na wala sonnul. Mm-hmm. alors. Euh, boo waxee par exemple euh, trois séances d'entraînement ni ngay amee ay séances d'entraînement noonu ngay amee temps de récupération parce que ni ngay entraîné woo noonu nga mën a récupérer sa sa corps mën a mën a mën a mën a mën a noppalu mhm. boo amee temps de ay séances d'entraînement temps de récupération le régime alimentaire aussi je pense que c'est important pour un sportif li mhm. nga xamante ne dañuy préparer combat Euh, seen régime alimentaire lan la war a nekk lan la ñu war a gën a favoriser ci li ñuy lekk ak lan la ñu war a euh, mën a wàññi ci li nga xamante ni dañ koy lekk. laa xam naa dina emprunter tuuti li ñuy wax usurpation de fonction. parce que je suis pas un diététicien. ci yéen sax mais dañ ciy am ay notions diététicien j'ai un peu de notion parce que damay liggéey ak ñoom parce que mm-hmm. bu ñu tolloo fii boo perdre le temps de calorie. mën naa ne ne tey lii nga war a lekk. Mm-hmm. wala boo paree entraînement. ban protéine nga war a jël wala avant la wala pendant wala après. Mhm. parce que complément alimentaire daf ciy bokk am na yoo xam ne c'est pré workout avant pendant ak après mooy li nga wax parce que bu ma nee trois trois séances yi par jour c'est sur une durée bien déterminée parce que loolu mënul yàgg. Mhm. loolu bu forme bi demee ba taxaw danga koy maintenir après da ngay wàññi benn séance tu vas rester entre deux séances deux séances bu boobaa tu alternes entre cardiovasculaire bi ma la doon wax un jour. Mhm. et cardio musculaire bi un jour. soo demee tey footing demain c'est la musculation mais forcément toujours le soir ci vas rester sur les techniques et les contacts pour garder rythme lamb boobu noonu. su demee ba combat bi des euh, euh, deux à une semaine explosivité ak rapidité ak garder fraîcheur physique pour ce deuxième souffle bi di gën a gaaw a ñëw boobu deux semaines yu mujj suñ koy liggéey bu boobaa une séance ak benn séance dégraissage ngay def. bu fekkee da nga ñëw ci cadre alimentation bi il faut que tout le monde mais loolu day topp mbëri ba ci jouru combat. ah bon ah parce que da teel a jógee sa kër. Gris Bordeaux jógee na fi 9h dem esaat gis nañ récupération bi ni mu amee problème mais mbëri dañuy teel a lekk lekk loo xam ne peut-être consistant la wala est-ce que am na énergie est-ce que am na protéine naturelle boobu nga teel a dem làmb ja takk sa ngemb 15h. Mm. yaa ngi wër yaa ngi sottee ko ay ndox. yaa ngi daw de 15h à 19 mm. ñi nga àndal bu ñu xamul ne kii loof na parce que lekk loo dara. c'est là aw en ce moment nga soxla ay fruits rouges te ñu bëri xamuñ ko soxla ay sucre lent soxla des produits énergisants yoo xam ne si bio et naturel pas luy indi problème boo xamante ne c'est dañ ko dañ ko bannir mhm. lu bokk ci wàllu complément alimentaire loolu day fekkoon nga tàmm di ko jël ci période de préparation bi mu nekkoon sa alimentation blanc poulet baax na viande rouge patro trop parce que baaxul di lekk poisson baax na mixer des fruits et des légumes ça dépend ci ban poids nga bëgg jël mooy li ma la wax. Hmm. masse musculaire sec boobu avant hivernal buy ñëw da ngay am benn masse musculaire volumineuse bu ñu demee ba dugg ci mi saison bi avant ñu fa yegg da nga koy tas li masse bi nekkoon tu peux prendre deux sujets bii cent kilos bi cent kilos mais ñu forme. Mm-hmm. xam nga cent kilo coton bokkul ak cent kilo xeer mais cent kilos la. Mm-hmm. xeer bi moo la gën a mën a gaañ ko coton bi. Mm-hmm. est-ce que yaa may comprendre. donc période boobu li nga doon lekk moom ngay continuer. mu fekk si ba ci préparation ba ci jour combat bi. Mm. dina la permettre nga garde forme bi muscle yi dinañ am répondant yow di mën a am physique boobu. Pape Maye ñëw su ñu jëlee bombardier par exemple ak sa mm-hmm. blessure. Mm-hmm. est-ce que bi excès de dire poids bu bari bi du ko du ko créer des fois. noonu la mel il a toujours été constant il a été toujours comme ça moom bu entraîné wul sax day am doole maintenant day valoriser force am. da koy jox du valeur maintenir ko en form au naturel comme ni ma la wax. parce que maasam noonu la may bind macha allah moo mel noonu mais ban façon d' entraînement la war a def loolu ça ça reste entre les techniciens. wala ñi nga xam man si ñu ngi si euh, làmb ji ba léegi mais xam nga man boxe daf ma neex quoi la mhm. boxe daf ma dafa j'adore. Euh, le sport euh, le sport nopp. dama dama dama dama en fait est ce que yéen dina seen compétence bokk na si par exemple di entraîner ay boxeurs. et puis boobu mooy euh, beneen bi moom mooy est-ce que euh, Sénégal fii nii am na ay ay coach comme par yu mel ne comme yow boo xamante ne dañuy dañuy coacher ay boxeurs de telle sorte ko parce que fii nii boxeur par exemple soo xoolee sur le plan international boxeur sénégalais yi bon moi je connais pas à part Souleymane Mbaye bon moi je connais pas euh, benn koo xamante ne boo def na carrière bu boo xamante ne bu tax ñuy wax quoi est-ce que loolu nekkul Sénégal fii dafa amul ay coach yoo xamante ne spécialisé wu si loolu moom moo tax. la moo tax loolu loolu am amuñu ay champion yoo xam ne y a des y a des fins boxeurs Sénégal des coachs préparateur boxe yu mag yu fi nekk. mais pourquoi kon mais mais pourquoi kon gisuñu. ñoom boole. mais mais pourquoi kon gisuñu si si compétition yi par exemple si euh, compétition ñoom Kandji. waaw mais pourquoi si euh, compétition euh, internationale ñoom ñoom ñoom ñoom Léo comment il s'appelle encore suma suma Léo. ok. mais jëlee nañ ko bu yóbbu ko Sénégal muy préparé waa Centre Afrique. ok mais xam nga centre Afrique bon mënoon mënoon nañu ko pare mënoon nañu ko utiliser fii Sénégal. non pour wax la ne la du Sénégal rek parce que Sénégal est euh, euh, euh, ñu am est que xam nañ cadre yi ñoom est-ce que xam nañ professionnels yi fi nekk. mais mais bu ñu amee ay professionnels am ay mhm. ce que am nañu ay champions aussi en boxe. waaw loolu laa bëgg je xam nga boxe 30 moom mi ngi wax. Mm. boxe is back maa ko lancé waat. ok biir Magic Land. yenn athlètes yi maa leen préparé préparation physique am na ñu ma jëlal palette parce que j'étais boxeur moi aussi j'étais formé par ñu yàlla ko yàlla yërëm Père John ak papa euh, papa Adjuma Diallo stade Iba Mar ancien fii bi ñu doon wax mairie équipe bu mairie bi. waaw kan. waaw xam nga autant pour wax la. Mm-hmm. boxe is back bi fédération bi toogee presque trente ans boxe amul daaw jéeg la boxe deux ans yi la boxe amaat bi président Mamoun As Mamoun ñëwee ànd ak Momo Awdi. que je salue au passage moom am na salle boxe am nay coach yu nekk foofu ñu defaat lancement wu boxe bi daaw mu am ay championnat am ay championnat zone de yu booy jël Sénégal am na ay médailles. Mhm. mais 30 booy ci ban fan ci ban compétition. Euh, zone 2 bi amoon bi tout récemment. ok moi je parle des compétitions bon Sénégal bon mën nañu. non championnat d' Afrique zone 2. pour compétitionner okay. okay. mais tout récemment championnat d' Afrique yi. Mhm. équipe bu 13 dem demuñu état bi nee nañu amuñu mois. ah, ah Ah, mais ils se sont là, ils se sont ah, préparés pendant trois ça, mois. c'est Hier soir j'étais avec eux. Là, c'est la préparation physique mais damay damay damay liggéey ñoom Idrissa Idi Idi Gueye. def na combat international tout récemment avec un Libanais il a gagné mi ngi amoon Dakar Arena. semaine passée mais mais pourquoi kon ñoom ngeen déggu leen le fait ah, que ñu. xam nga média bi aussi des fois politique ngeen topp tamit. ba mu non non non mais mais est-ce ñoom aussi jóg nañ pour communiquer sur ça. ah si parce que je les ai entendus sur la RFM itam excusez-moi. sur la si yeneen télé yu bari dégg naa leen. si yenn euh, journal sport yi yóbbu nañ dinañ def ay annonces dinañ def ay émissions ci yenn télé yi ak yenn yenn plateau yi. ah loolu moom ko war a xeex. Grégoire. alors man damay delluwaat ci wàllum lekk gi que. coob <laughs> Euh, sànq dafa tudd lu am solo muy importance fruits ak légumes mais man constat général ma def moom mooy mbëri tànk lekkuñu dibi xamuñ ne lekk nañu ba <laughs> moo tax seen masse musculaire bi bari noonu nga gis ko ci sonn na xool dafa nekk loo xam ne muscle la le cœur c'est un muscle. Mm-hmm. danga koy préparer mais si le kër yi enveloppé que de la graisse fooy noyyee. nooy donc nooy. et danger bi muy mbër ak keneen ak keneen ñu ñëpp pour ñun bu ñu noosee. Ah. da ngay teg excusez-moi bi teg ci benn boisson je ne fais pas de publicité. Ah, gazeuse teg dibi bi rek teg ko ci mu compact doon nooy. sa veine yi dara du dox aorte bi taxaw gras bi na fa tàkk nga dem tëddi soo amulee chance tuuti morgue ba nga yeewoo soo amulee chance tuuti morgue ba nga yeewoo. Mhm. yaa ngi koy wax léegi lan moo tax. suñu mbokk te te li ci gën a graaw mooy guddi lañ koy lekk. ñëpp nag góor nekk ci am na suñu bari ñoo xam ne fa lañ jaar yeewuñu. yaa ngi koy wax sunu mbokk yi xam naa tur bi moom may xaw a déranger ni nga koy waxee foroxcaay neex bool day ko ci teg bul wax foroxcaay kese boo waxul neex bool bi day yéeme mais yàpp boobu yàpp gënu koo riche et tu le manges le matin yàpp boo bëggee mu amal la njariñ surtout si da nga koy lekk le matin Aïcha mi ngi ree bay bëgg a wala daa dafay dafa am solo wala nga dem ba 17 heures pour la digestion mën a gaaw mhm. parce que boo ko jëlu au delà trois heures de après su tasul day dem nekki gra day ut fu muy laxatu ji moo tax boo xoolee yi jël masse ñi si ëpp c'est entre fii ba ci taay bi parce que énergie boobu boo ko ak alimentation saine bi nga jël bu fekkee ne transformé woo ko day dem nekki gra day ut fu muy laxatu ci yaramu nit moo moo moo gën a baax euh, je parle de manière générale euh, parce que voilà man personnellement du ma sportif professionnel mais je, pratique du sport euh, en général nit ban heure la war a lekk yàpp yàpp hmm. 17 heures 18 heures wala bu dee da ko lekk guddi boo ko lekkee bul tëdd heure boo ko mënti lekkee les 2 heures et les 1 heure bul jël risque tëdd yàlla mën na la dimbali nag nga yeewu mën na laa dimbali. su fekkee entraîné wala fekkee entraîné ak ñàkk entraîné parce que digestion bi. au delà de heures de temps parce que li ñuy def c'est dangereux dañ koy fowee lekk yàpp rek tëdd. wala lekk yàpp vingt une heures vingt une heures trente vingt deux ñu ñëpp buñ guddee buñ wàccee soo lekkul madame da lay mere. mais viande rouge bi pourquoi c'est c'est aussi dangereux. parce que dafa la mën a jox feebar yu bari a yu bari ay feebaru goutte ay tension yooyu yëpp da ciy ñëw. goutte moom sa tànk yi jàpp sa tànk lay jàpp. viande rouge moo ëpp li mu koy joxe. tension bi parce que grain gras gra bi moo tax. looloo tax jën ak euh, bon su ma mbokku alburaay xam naa ak ñeneen yi sama mbokku sàmbeer yi dinañ ma mere parce que ñoom bu ñu xëy kër géwél bu ñu toggul yàpp lekk yàpp sonn moom bu ñu am jàpp ñoom Amet ak Bala Samb ma leen nuyu au passage donc une alimentation saine et baax na ci nit la récupération elle est importante sànq yaa ngi koy wax le muscle il prend au repos pas pendant l'acte moo tax ñu bari boo leen gisee saal ñu àndal ba si yàgg tourner xool affaire bi nekk fa suñu sangoo dootuñ ko gis mu jaaxal leen. léegi euh, leneen li ma jaaxal donc après bi. si lay ñëw. donc looloo tax le repos est important. beneen point bi ma jaaxal moom mooy dangay gis nit dina dugg ci saal liggéey loxo liggéey tànk mais à chaque fois boo gisee day mel ni lii mooy ëpp lii. loolu mooy danger bi li ñuy wax la forme du lion ñu bari c'est des parties c'est des parties des parties yoo xamante ne. Grégoire li muy wax dafa mel ni moom laa remarqué ci yow. peut-être jàllaabi bi la. ah ok non non gis ma tànk yi kii laa gis ci kaw quoi. <laughs> Ah, moom lay expliqué <laughs> bari na. Uh-huh. loolu loolu bari na loolu boo nekkee coach sax loolu nga war a njëkk bañ mais bari na. benn bi liggéey le bas du corps. Hmm. le bas du corps c'est le dénominateur commun de tous les sportifs te moom mooy supporter da ngay mel dafa mel ni comme li ma la wax kër kër bu amul fondement bu amul poto yu baax day teel a daanu et même booy vieillir. sa bas du corps bu fekkente ne amul doole wala amul forme bu baax booy màggat da ngay sëgg te tànk mooy nit tànk mooy góor tànk mooy nit noonu laa ko mën a expliquer moo tax ñu bari boo demee salle da ngay gis pec dos biceps triceps rek nga gis seen kaw gi def ni comme une carte ngand mm. ni tànk yi tuuti parce que ñewee ñemewuñu ko liggéey lu bari dañ koy bàyyi et c'est très dangereux et nous par contre on est des sahéliens ni ñu bindee fi ñu féete. Mm-hmm. on est des sahéliens boo xoolee des fois suñu moolay ak suñu forme bi ni mu mel bokkul. kon nit ni muy liggéeyee ci kaw noonu la war a travailler le bas du forcément surtout le bas sax moo ko war a gën a emporter de plus. parce que tànk bi mooy dox tànk bi pour nga am condition physique c'est les jambes boo yëkkati c'est les jambes boo amul assise. doo ko mën soo bëggee soulever doo ko mën soo bëggee pousser doo ko mën donc il faut nga am condition physique te pour nga am condition physique moo doon jox. Mm-hmm. préparation physique moo la koy jox préparation physique bi ëpp bi ñu xam daw la vélo la corde la footing yooyu yëpp tànk moo koy def bon euh, on man dafa am benn affaire bu ma mos a intrigué euh, moom mooy euh, pour man entraînement maanaam entraînement pur pour bodybuilding la quoi benn pratique sport bu ñuy bu ñuy def pour wane bon sculpture ban la musculation wala l'entraînement non bodybuilding comment dire Euh, moom mooy body building bi ñu pratiqué. waaw euh, moom mooy bu compéti ñuy dem ay compétition di wane IBBWF voilà di wane seen corps yi euh, pas pas pas pas comment comment pas ni ñuy yëkkatee poids yi comment ça s'appelle. arraché wala soulevé. non am na benn sport boo xamante ne boobu. powerlifting. non non non ça m'échappe. haltérophilie haltérophilie merci pas haltérophilie pas waxuma haltérophilie parce que haltérophilie bon tu t'entraînes pour le faire pour soulever des poids. Mm -hmm. euh, mais bodybuilding moom mooy comme bi Arnold Schwarzenegger daan daan def affaire yooyu noonu mais man gisuma ko pratique boobu gisuma ko fii par exemple. pourquoi loolu loolu loolu amul Sénégal alors ko pour bu fekk pour man bu fekk entraînement euh, finalité bi entraînement dëgg-dëgg pour loolu la quoi. parce que loolu noonu bon c' est pour man c' est le summum suprême nga simmeeku ñu wane ne gis sculpture corps bi nu mu mel noonu. pourquoi lan mooy explication pourquoi. amul li ñuy wax di wax moi moi wala bodybuilding bi ñu ko am Sénégal maa ko njëkk organisé c'était en 2011. ah bon waaw. y avait des yoo xam ne dañu ci nekkoon Liban Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun Guinée Mali. am na am na France y a toujours des sénégalais yu koy pratiquer fii. moi je le après la arrêté. j'étais l'un des précurseurs. ci hmm. bodybuilding je l'ai fait. j'ai deux pas ça souvent. parce que dafa métti tu n'as pas d'accompagnement. financièrement financièrement tu le seul. ok tey am na moment Sénégal ba léegi boo xoolee sport bi nii rek mais ni ñu ko war a gëmee gëmuñu ko fi ñu ko war a teg tamit dafa xaw a demee boor il faut ñu delloo ko ci école yi. waaw yaakaaroo ni Sénégal peut-être peut-être. pourquoi États-Unis États-Unis NBA am doole. parce que c'est valorisé y beaucoup d'argent y a des sponsors et tout et quoi encore. sport étude la par force. c' est c' est deux choses championnat universitaire. championnat universitaire yi ngay commencé. waaw si tu es meilleur si tu doo dem wala boo amee note am talent dañuy incité booy à ce que nga nga. mais est ce nekkul culture bi est ce que nekkul culture dafa dafa si Mbaye Sèye culture la boo xam ne peut-être mi ngi fii mais nit ñi dañ non je dire culture boo méngoowu la ak culture u Sénégal wala waaw te day am euh, lu xaw a tabou parce que Sénégal yi boo ko solloo boxeur wala dara mu taxaw di def posing ni ko nit ñi di gisee lool aussi def ci jouer aussi duñ ko comprendre il faut nga benn monde boo xam ne xam nañ lan mooy loolu et bi ñu koy découvrir rek à travers comme on dit la communication égale à la contamination ba nit ñi xam lan mooy bodybuilding lan mooy euh, Arnold classique et tout ça ba permettre nit ñi découvrir question de communication la merci beaucoup merci beaucoup ça a été un plaisir de parler du sport ah moi man moom dama bëgg sport waaw ça fait partie de mon quotidien doo <laughs> ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi. bàyyi tàggatoo bu dul tàggatoo. Mm. di am contentement ak ak plaisir partagé ak yéen macha allah. Mm. di ñëw tout le temps fii à la 7 di fekk ay nit yu professionnel dama leen di suivre tout le temps. yéen ñëpp vraiment. gis nañ niveau niveau bi ni mu ni mu ni mu toll liggéey bi xam-xam bi fi génn ak dal bi ak respect bi ngeen di jox sax bi ngeen di invité te loolu la si nit ñi gën a remarqué en tout cas ça a été un grand plaisir de partager avec vous di leen wax xam naa la prochaine incha allah. di nuyuwaale ma grande la famille. merci beaucoup jaajëfal nañ la bu baax a baax ay la comme c'est de la régie léegi léegi dañuy dikkaat ci plateau.